seeti Malick Gakou ndekete Malick Gakou nee na pétrole bii bu ñu ko séddoo sénégalais bu nekk dinga am cent millions loolu la nee na sénégalais bu nekk mën ngaa am cent millions yoo xam ne bu ñu séddoo pétrole bi kenn ku nekk sa wàll ku nekk dina am cent millions ay sa promotion de ko ko jox cent millions bëgg koo yónni na ko kaay dina ma carte fële billaahi boo moytul carte la lay def kon ñu seeti Malick Gakou séddale bi nan lay doon a sénégalais bu nekk bu amee cent millions nan nga koy dundee Malick Gakou toj na réew mi yëngal na réew mi yëngal na état bi Malick Gakou dañu seeti woyi gij woyi jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf euh, laaj ma bu ne bu nekkoon président noo ngi def loolu ci kanam na ko jàpp dina na ko laaj ngeen tontu ma euh, dama ne affaire pétrole bi euh, wax dëgg yàlla Sénégal kenn waratul taxaw di laal loxo di ñaan nit doomu aadama ndax pétrole bi mu ngi commencé Kayar romb Kayar di dem topp yoonu géej gi ba ndar géej ñu yaakaar ne Sénégal pétrole la am yàlla na leen déedéet xaaral ma ñamal leen loo xam ne moo gën a neex pétrole muy gaz. Euh, dama ne euh, boo nekkee ci kër euh, yàlla def xéwal waat ci kër gi ñu ne borom kër gi am na benn milliard milliard bi ne ko séddale taawam ba ci caat bi dama ne kenn ku nekk bu ñu la séddee ci kër gi wax dëgg yàlla di nga nekk millionnaire te yàlla boo ko def ndax li nga jot ci kër gi mooy am solo dama jërëjëf euh, dë dëkku naar yi boo demee Qatar nel benn boo demee Iran nel ñaar boo demee Irak boo demee Af Afghanistan boo demee Dubaay boo demee nag fi nga xam ne nag fa la ndarkepe àdduna bi mooy Barxem dëkk bi nga xam ne moo ëpp milliardaire ci àdduna bi foofu amul yalwaan kat amul jënd loo bëgg rek moom ngay am ndax ñooñu ay multi milliardaire lañ kenn ku nekk ku ndaw ku juddu am nga milliard te defoo dara liggéeyoo xëyu ko doon. Euh, laaj bi ma ne kàkku boo président na ngay def. Euh, wax leen ko ñaar yoon ma dégg ko. Malick Gakou boo nekkoon président nooy def. tollante la ko ma soog ko gëm. Malick Gakou boo nekkoon président nooy def. amiin yaa rabbi yaa rabbal alamin yàlla seen gémmiñ barkeel euh, gis nga xaalis bi nga xam ne mooy mooy pétrole bi euh, buñ ko jaayoon tey yëpp ne sénégalais bu nekk dañ lay séddale Macky Sall na léegi sénégalais bu nekk si pétrole bi sa wàll xam lu ñu def kenn ku nekk dañ lay jox li nga xam ne moom nga yelloo dama ne sénégalais bu nekk di nga am 100 millions. boo ne 100 nag ñu bëri duñ comprendre 100 mooy ñaata. mooy téeméeri million Sénégal bi rek am téeméeri million yoo xam ne mooy def sa garafa yaa ko moom te wax dëgg yàlla mooy li nga xam ne moom ngay njëkk jot buñ demaatee ba fukki at nga amaat téeméeri million bu yàlla defee suñu bakkan bi ñuy nooy di dund buñ demaatee yenn fukki at nga amaat téeméeri bu yàlla defaat ñu dundaat dundaat dundaat ba man fukki at ku nekk amaat bu yàlla defal ñu dundaat dundaat ba man at ku nekk am bu yàlla defal ñu dundaat dundaat ku nekk am fukki at dama ne moo tax pétrole xéwalu yàlla la boo xam ne da koy wàcc si doomu aadama yi waaye léegi xoolal ki nga xam ne ba pétrole la mu am cent nga gis benn sàmb sula baare boo xam ne mu nga fenn ci benn ruqam musul liggéey musul def dara nga jox ko téeméeri million dama ne dëkk boobu wax dëgg yàlla euh, buy émerger nit ki ci boppam mooy émerger boppam ndax yàlla wàcc dafa xéwal euh, dama ne Macky Sall nañ séddale ndax Sénégal dañ tel foo xam ne séddoo ndax séddoo bi nga xam ne moom mooy séddu bu kii ñoom moom lañ bëgg def jël xaalis bi seetlu ko seen biir seetlu ko seen biir ku nekk am li nga war am ñoom bu ñu fi jógee ñu koy doon di ko doonante te loolu ñu loolu ñun nekk ñoo xam ne ñun gisuñu ko mu nekk yoon bi nga xam ne mooy tax Sénégal jëm kanam ndax ñoom ñoo jëm kanam Sénégal di dellu ginnaaw euh, bu mu nekkoon président de la République euh, jamono yi xam ne Macky Sall moom moo ko moo ko nekk bu oh, li nga xam ne moom mooy euh, pétrole bi génn jàpp leen de pétrole laa wax de waxuma or sabadala dama ne pétrole rek wax bu pétrole bi génnee damay seet ñi sant Njaay ne ana ñi sant ñi sant Njaay ana ñu ñu ne ma ñi sant Njaay Sénégal ñoo nekk nii ma ne compté le ma ñaata Njaayeen ñoo am Sénégal ñu ne ma Sénégal boo ko am na 2 millions ñu sant Njaay ma ne ana ñi sant Diop ñu ne ma ñu sant Diop Sénégal ma ne ñaata lañ ñu ne ma ñu sant Diop Sénégal mën nañu 1 million ma ne ana ñi sant Sine kon euh, Kouthia ana ñu ñu ne ma ñooñu bëriwuñu waaye ñii nañu ma defee ma ne ana ñi sant Joxaane ñu ne ñii ñoo sant Joxaane ñu wàññil ma ko ma compté léegi famille Ndiaye ñu yëkkati lu mot téeméeri milliards jox ko famille Ndiaye ñoom famille Ndiaye ñu séddale képp ku sant Ndiaye am 100 millions kenn ku sant Diop am kenn ku sant Sine ndax ñu sant Sine bëri wuñu ñoom ko ku nekk dina mën a am 500 millions parce que bëri wuñu macha allah ñooñu yàlla moo def ñoom seen sant bi dafa raar waaye nag ñu mën leen dimbali ñu mën am xaalis bari ndax fekkee Ndiaye li ñu bëri ñu sant Sine bëriwul doon na ko Ndiaye ni mën nañ ñoon ñu sant Sine te boobaa ñu sant Sine dañuy néewle doole kon Sénégal su ko defee ñi sant Sall ñu jox leen kenn ku nekk fukki junni waaw parce que ki fi nekkoon sant Sall mu nekkoon président ñam na ba pare moom li am mën na ko séddale ak ñi sant loolu yàlla loolu bu ñu xoolee Sénégal am na pétrole am na gaz am na or am na armignon am na weñ am na mbalit mbalit bi bu la ko xeeb ndax kilo mbalit waa Japon ñu ngi ko jëndee kilo mbalit fukki junni ak ñaar mbalit bi ngeen di tuur dañ koy tuur ngeen yaakaar na mbëbës dañ koy sotti waaye guddi gi chinois dañ koy di ko di di ko jaay kon mbalit bi or noir euh, Sénégal am na xaalis Sénégal am na munin kon xaalis bi nga xam ne moom la Sénégal war dunde dundee te Macky Sall toog ci bugg bu fi jógee mu daal ko séddoo ay mbokkam ñoo bañ ñoo lànk duñ nangu dama koy tontu soog dem sama parce que xam naa ne li may wax ni bañu ma dig fekk sama sama kër bañu ma gendarmerie fekk sama kër te bu ñu ma laajee lu tax nga ne Sénégal bi ne am na 100 ko teg dëkk bi est-ce que mu ngi dox dëkk bi fa dox dëkk bi doxatul. dëkk bi doxatul. parce que dëkk bi euh, euh, dox astafurlah bu dox bu doxoon euh, nit ko yëg. kon dëkk bi doxul. dafay raam di raam a raam dëkk bi doxul dafay raam di bi doxul waaw bi doxul. dafay dafay raam. raam raam raam. raam. raam.